الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن شاء الله في en waabudaa ويل كذلك إن شاء الله xam naa ci nekk ginnaaw bu ñu mënoon avancer tuuti incha allah
kon alhamdulilah mbokk yi noo ngi fas yéene eggali waxtaan wi nga xam ne moom la ñu sumboon ñoo ngi woon ci tomb bu njëkk bi mooy doful waasiu diini yi ci tomb yooyu leeraloon nañ ci ne ab jullit bu góor su fexee ba juum su fexee ba jéng ci tànn bi muy tànn soxna lor gi ma ngay juddoo ca ay doom ya muy am ci sëy boobu kon kenn ci ñun góor nga walla jigéen amoo droit di échec ci sa mariage moo tax waroo ko parax paraxee et puis waroo tànnal sa bopp sa diine sa yonent daf la jox ay critères yooy tànnee ku fi dof dof lu di tànn ay bët yu dijj ay tànk yu njool jigéen ji fi dof dof lu di tànn ay sikkim ak ay nangam di nga dóor sa loxo ci ëkk yonent bi moo nu tànnloo góor moo nu tànnloo jigéen waaye ñaar yëpp jikko la bu jikko la ñuy wax yonent bi danay góor jigéen ñi iza raaytum man tardawna diinuhu wa xuluqu su ngeen gisee góor goo xam ne am na diine am na jikko waxul yére waxul mbaxna waxul xaalis waxul matériel iza raaytum man tardawna diinahu wa xuluq su ngeen gisee waajoo xam ne diineem ak jikkoom baax na mu ne fa zawiju la kon ku ci repp ci ñun di parax parax ba dem jël jigéen joo xam ne waroo koo jël walla nga jël góor goo xam ne waroo koo jël say doom am nañ problème ñaareel bi mbokk yi mooy xiyaabu xudwa as-saaliha bokk na ci li yàq suñu jikko yi mooy amuñu ay référence suñuy doom dañuy judd duñu am référence da ngay gis xale boo xam ne papaam doyu ko ñan lay roy mbër yi ñan lay toppandoo ñi ci télé bi kan lay xool ñi ci mbedd mi soo amee doom sa doom war na la ñii bëgg a mel ni yow ci mbaax ci diini fi nga jaar dafa am benn waay bu jàpp doomam ci tefes gi mu ngi simmi dàll yi daf tànku neen mu ngi lem pantalon ba ci kaw xale baa ngi sol kileb ñoom ñaar vague géej gi mu ngi dal ci seen tànk papa jaa ngi téye doom ji tey bu dëgër ñoom ñaar ñuy dox ci tefes gi di doxantu papa ji jékki-jékki ne doom ji xoolal bu baax fi ngay teg sa tànk papa ji jékki-jékki ne doom ji xoolal bu baax fi ngay teg sa tànk doom ji ne ko papa jiitu rek ma nekk sa ginnaaw foo teg sa tànk foofu laay teg sama tànk loolu nag wax ju réy la ci ku dégg mooy foo teg sa tànk foofu lay teg sama tànk kon yow baay yow yaay na nga xam na nga fexe ba nga nekk référence ci sa doom al qudwa as saaliha tey nag ñàkk loolu ci sunu biir kër yi loolu moo tax ñu am problème xale bu jigéen bi mënut a toppandoo yaayam xale bu góor bi mënut a toppandoo baayam munu ko roy day dem di xool yi ñeneen waaye bu fekkoon ne fees nga place bi sa doom bu jigéen bi ñee la bëgg a mel ni yow su fekkoon ne fees nga place bi sa doom bu góor bi ñee la bëgg a mel ni yow damay damay tëb nag léegi ndax damay bàyyi rek damay laar rek bu ñu xamee tomb bi rek après ngeen yeggali ko beneen ñetteel bi mooy alfaraax bokk na ci làq suñu jikko temps bi temps dañoo am temps bu bu ëpp temps boo xam ne bi ñu amulee lu ñu def ci temps boobu ci la ñu ay xalaat di dugg ñuy xalaat yu bon xalaatu seytaan xalaatu jeng ndax temps boobu amuñu fuñ ko def mbokk yi sénégalais yi li ñuy yàq ci temps buñ ko defoon ci liggéey kon naaw nañ bu yàgg xoolal rek semaine bi passé ñaata feet lañu am weer bi nu nekk ñaata feet moo ci nekk tey ji sax feet la temps boobu ñu yàq ci réew mu tardé bu mel nii nga xam ne nit ñi heure liggéey sax lañ koy fo temps boobu mbokk yi ñu waroon def ci sunu jaamu yàlla def ci sunu liggéey sunu àdduna temps boobu la ñu exploité wul loolu bokk na ci yàq jikko yi képp koo gis mu am temps rek jikkoom du baax parce que fa nga amee temps fa la la yu bon yi duggee fa ngay ànd ak ñu bon ñi fa ngay defee lu bon dafa am benn borom xam-xam bu mag ci borom xam-xamu Sénégal yi la dafa ko wax joo xam ne gars yi biñ ko ciy critiquer mu daaneel leen benn waaye dafa ñëw ne ko man de am naa doom dama bëgg nga jox ma yoon wu ma koy jaarale ba yar ko ba mu baax mu ne bul ko tere mooy yàlla waa ji tiit ne lan ma ne la dama bëgg mu baax nga ni ma bu ko tere mooy yàlla mu ne waaw mu ne loolu nu muy nekkee kon du baax mu ne da ngay fexe ba du ko tal da ngay fexe ba du am temps dem di mooy mbokk yi kii baali dafa am kii dem sorti dafa am kii toog di seetaan télé dafa am da ngay programmer sa doom ba du tal yooyu kon du ba mu baax jeex na waaye bu fekkee amul programme lu jóg këf ko mu dem ma tëbaat feneen an nafsul amaara bi suu dañu xam nga lu yàq suñu jikko yi suñu bakkan yi moo fees ak salte loolu yàlla di wax ñetti amaara yooyu nafs yooyu ñun suñuy bos dafa fees del del del ak ay bakkaar looloo tax mu daal di sóobu yoonu seytaane te xam ngeen ne seytaane lan la wax yàlla qaala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in yàlla seytaane dafa waat ne maa ngi giñ ci sa màggaay yow yàlla nit ñii yàlla ne amu ne ñoom ñëpp dinaa leen sànq ngeen defe ne seytaane dafay toog rek ñun ñi cëppi cëppi déedéet seytaane moo pare pour ñu réer ñun mu woo ñu ñu wuyu ñun tamit kenn ci ñu sax ripostewul loolu bokk na ci tax jikko yi yàqu topp seytaan topp suñu bànneexi bakkan parce que li araam yépp seytaane moo ko jël taaral ko ci ñun ba mu rafet ñu fàtte ne yàlla daf ñu ko tere woon mbokk yi tey fii ci Sénégal li ëpp ci ñun lu dul ku yàlla bëgg aar la seytaane am na ci yow cër am na ci yow wàll wu rëy di la digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi mu lay tëddloo di la yeewuloo moom moo lay programmer lu ko neex mu def ñu mel noonu nag naka la seen jikko di baaxee ñoo xam ne seytaane moom mooy seen guide moom la ñuy topp beneen tomb bi mooy azulm tooñ tooñkat jikkoom du baax mukk al jahl ku réer sa jikko du baax al faqr ku ñàkk sa jikko du baax kaada al faqr an yakuna kufran ñàkk xaw naa nekk ak kiifir tey africain yi waxuma africain yi mais sénégalais yi li ëpp ci li ñuy def lu bon lu ko waral ñàkk xale bu jigéen bi jaay boppam lu tax mu koy jaay bi ñu génnee film Assane bi ñu traduire ko man ak sama benn xarit bu tudd Ousmane Diouf mu def olof bi ma def pulaar film bi bi ñu ko lancé RDV fan yooyu li ñu woo ci téléphone ëpp na million wu nit am na ci ay xale yu jigéen yoo xam ne dañ ñu woo ne ñun ñu ngi buur mbuur dañoo loué benn kër mat nañu 200 jigéen ñun ñëpp dañuy jaay suñu bopp dañoo bëgg ngeen ñëw waxtaan ak ñun parce que film bi ñu ko seetaanee ñun ñëpp dañoo tiit am na ñoo xam ne sax daw nañu ñibbi ñun ñoo fi des ñun ñi nga xam ne ñemewu ñoo dem parce que xamuñu fu ñu jëm ba ñu tàggoo suñu kër yi kenn xamul ñaata at la ñu luwee taxi ñetti nit ñoo wàcc mbuur woo leen téléphone ñu ñëw jël sinu biñ ñëwee kër gi ñu luwee terrasse la ay néegi néegi néegi néeg néeg ñu yendandoog ñoom ci saal bi 18 ans ba 28 ans li ma gën a jaaxal am na ci koo xam ne am na brevet arabe mu ne ma am naa brevet arabe ñun ñëpp bi ñuy tàggu suñu kër yi di ñëw di daje fii dañu tàggoo liggéey waaye xam nga lu ñuy liggéey fii ñu ne ñu ne jaay suñu bopp lu ko waral ñàkk rek ki ne dama séyoon tas ki ne sama jëkkër dafa dee ki ne man nangam nangam suñu waa kër laay dimbali amuñu mais yëpp boo ko dajalee da ngay gis ñenn ñi banditisme moo leen ci dugal ñenn ñi ñàkk kon ku ñàkk du am jikko ju baax ndax jikko ju baax ngor la diine la su fekkee ñàkk daf laa jàpp te gëmoo yàlla dangay def lu bon da ngay nangu loo xam ne waroo ko woon nangu wala nga def loo xam ne waroo ko woon def al kibru rëy ak yeneen jikko yoo xam ne mu ngi ci biir beneen bi tax jikko yàq mooy wasailul ilam mooy média bi média bi dafa yàq jikko yi média boobu nag bi ñuy liir ak bi ñuy seetaan ak ñu yor média yi ndax dañoo jël lu bon sànni ko ci biir àddina bi ci biir dëkk bi ba kenn mënta xëy xool télévision lu dul di nga gis lu bon kenn mënta jàng journal ba journal bi jeex lu dul di nga gis lu bon wala nga jàng lu bon lu mel noonu nag ci dëkk boo xam ne nit ñi ay jullit lañ jànguñu diine seen mbaax day jafe seen jikko yu baax day jafe sunu borom nee na ci alquran inna allazina yuhibbuna an tashia alfahisatu fi allazina amanu lahum azabun alim fi dunya wal axira wallahu yalamu wa antum la taalamun suratu nuur ay 19 suñ borom nee na ñi bëgg lu bon tasaaroo ñi bëgg la wax waxul ñi ko tasaare dana ñi ko bëgg rek nga xam ne dafa nekk seeni xel nekk seeni xalaat ñu bëgg ko def ay projet yàlla nee na ñooñu dinaa leen mbugal àddina mbugal leen alaxira te defaguñ ko kon ki ko def nag kon ki ko def kon ndeke média bi sax dafa bokk ci li tas dëkk bi waaw may jégalu de damay tëb lu bari ndax mbir yi moo ko laaj beneen bi bokk na ci suu tarbiya al usriya al usriya yar yar bu bon nga am doom ku góor ak ku jigéen ngeen am doom wala ngeen yar ngeen jox seen noon na leen ko yaral wala ngeen jox ko télévision bi mu yar ko wala ngeen bàyyi ko mbedd mi mu yar ko muy baax loolu tey bu ngeen koy seet suñu kër yi dangay gis yaay joo xam ne bi mu muuroog léegi mën na 40 ans papa ji def na 50 ans ci sunna ñu am doom joo xam ne boo yendoon doog moom rek suur doom suur ko kël ay fi ma yendu tey te xale boobu demagul fenn kat ay 7 ans 8 ans la amagum 9 ans 10 ans mais di nga gis ci moom yenn jikko yoo xam ne parce que da nga xam ne kii yaruñu ko. fa am benn waay bu am doom mais muuma la mu ne mu joxoñ doom ji ne ko gis nga damay am gan guy ñëw tey bu gan gi ñëwee boo waxee ak moom rek dama lay rey tàmm nga gan gu ma am rek nga fexe ba du dégg yàlla def gan gi ñëw nekk muuma gan gi bi mu ñëwee mënut a wax naan nii xale bi bàyyi ba yaay ji dugg ci waañ mu ñëw ci gan gi ne ko xanaa bi ngay ñëw sa yaay da leen a bul wax ndax boo waxee da lay rey parce que moom loolu lañ ko wax mu defa ne gan gi bi muy ñëw moom tamit yaayam loolu la ko wax voilà kon ndekee xale dañ koy yar yonent bi nee na rafiq tiflaka saban wa allimhu saban wa laibhu saban 7 fois 3 21 ans mu nekk soldat islamique bu iliman tardé mu jiite bu ñuy sang nee mu def ko bu ñuy dem front bi mu nekk ci kanam bu ñuy naafila mu nekk ci kanam lu ñuy def ci islam mu nekk ci kanam te 21 ans la am loolu tax yonent bi jëloon ay xale yu ndaw di leen jiital ñoom ñoom ñoom ñoom xare bi yonent bi njëkk a jiital xale ci xare xale boobu kan la Usaama ibnu Zayd Abubakar a ngi fi Omar a ngi fi Usmaan a ngi fi Ali a ngi fi moo tax bi yonent bi génnee àdduna Abubakar bi mu toogee li mu njëkk a def mooy tanfiis jay su Usaama gaa yi ñëw ne ko ah waaw yonent bi de moo ko moo ko jiitaloon xale la ndaw ko remplacé mu ne leen yonent bi du jiital nit ma koy ma koy ma koy wàcc ndeysaan keroog ba Usaama yéegee Usaama ibnu Zeyd yéegee ci fas bi di jiite xare bi Abubakar di dox ci suuf jàpp ci ngalaa bu fas bi di ko di ko dénk Usaama ne da ko damay wàcc dox yow xalifa yonent bi dafa ñaaw man xale bi ma ne ci kaw fas bi yow ngay dox ak sa tànk mu ne ko toogal ci kaw fas bi yonent yàlla bi moo la fi teg kon mbokk yi affaire yi du lépp ak léppoon suñu bëggee suñu société baax suñuy jikko baax ñun suñuy soxna après suñuy doom waaw xale bi li muy def ci kër gi wala li muy def ci mbedd mi moom lay nàmp moom lay dund benn boroom xam-xam bu mag benn yalwaankat dafa dugg këram di yalwaan mu jekki-jekki rek dégg boolu yalwaankat bi di bërëngu ci escalier yi mu daal di génn néegam mu fekk yalwaankat bi daanu bool bi nekk ci wetam oom yi xureeku waa ji yuux mu ne ko lan la mu ne ko sa doom jooju mooma bu max ci escalier yi ko xam da ngeen a mën a yalwaan waa ji dem bërëngu boroom xam-xam bi wàcc ba ci waa ji fi mu daanu mu sujjóot xam nga bi mu sujjóotee lu muy ñaan yàlla yàlla maa ngi jéggulu doom ji yaa ma ko joxoon man maa deful sama liggéey ba tey muy lor société bi maa ngi lay jéggulu yow yàlla doom ji yaa ma ko joxoon man maay ki deful sama liggéey ba tey mu màgg toll nii di lor société bi kon képp ku fi am doom muy lor société bi war ngaa jéggulu yàlla ndax bi la ko yàlla di jox boobu waru woon nekk kuy lorekat gars yi doomu ñey bu juddoo nu muy def day dox ànd ak yaayam ay 30 secondes mu dox ànd ak yaayam d'accord ngeen gaynde bu doomam juddoo nu muy def 30 secondes mu ànd ak yaay ji ci àll bi ñuy dox ba ci xar yi ci biir kër gi suñu juddoo 30 secondes dañuy ànd ak seen yaay di dox gars yi doomu nit bu juddoo nu muy def kañ lay dox voilà yàlla dafa bëggoon nga fexe nga yar ko balaa muy dox di loraate préparé ko balaa muy màgg di dox di loraate moo tax moom dañu téye tànk yi yeneen yëpp rabu àll yëpp dañuy judd rek dox ba mu des nit loolu am na lu ci nekk beneen bi mooy duuful manahij at tarbawiya waaw man bu ma baaxee sama soxna baax ñu yar doom mu baax ñu yóbbu ko ci école bu baaxul programme bu baaxul ay enseignant góor jigéen ak ay enseignante diin lu xew kon aussi programme bi ñuy jàngal nit ñi dafa war a baax parce que programme boobu mooy baaxal dëkk bi mais programme bu baaxul ñiy jàngale baaxuñ léegi léegi maa ngi woon benn mbokk benn image bu ma jëlee ci Facebook bi du ma ko tayal foog ma wal leen ko jàng démb ak jàngu tey jàngu démb ak jàngu tey la moo tax xale yi mënatuñu baax mënatuñu bénéfice wu ci mbaax jàngu démb ak jàngu tey démb ñi jàngale dañuy sëgg ñi ñuy jàngal war seen kaw tey ñiy jàngale ñooy war ci kaw xale yi ñuy jàngal waaw wala du dem yow booy jàngal ay nit nga yëg seen kaw benn enseignant bu am 50 ans daal di jàngal benn xale sixième wat yëg ci kawam xale boobu mbokk yi fu mu jëm waaw mu ngi nii ki du ma tayal pour won leen ko ah yeneen gis kan jàngu démb bi ah kan jàngu démb bi kan la woon mu koy jël ok mu ngoog jàngu démb bi kan la woon mooy xale bi enseignant bee sëgg xale bi yéeg ci kawam tey xale bee sëgg enseignant bi war ci kawam di bind li mooy jàngu démb ak jàngu tey moo tax dem li mooy suñu problème xool leen ko bu baax mu ngi noonu ñaari bët ku nekk na ko xool ñaari bët ba pare boo ko mu gën a weddi nag bu ñu paree nga ñëw taxaw fii weddi lii su fekkee amul kenn mun ko weddi Sénégal lii mu am Sénégal parce que programme bi baaxul ñi jàngale baaxul incha allah mbokk yi yaakaar naa mën nañu tënk foofu lu bari la woon nag waaye maa ngi leen di soññu di leen respecté heure yi ndax ñàkk respecté heure yi day day gàllankoor waxtu yi su ngeen dañuy jël dañuy jël temps bu bëree bëri ci préparer thème thème boo xam ne day ma 3 heures de temps nga ñëw ñu wax loola ko ci 30 minutes fi mu nekk nii 7 points yu yàq xale mu ngi fii 7 points yoo xam ne day lor xale ci télévision 7 points yoo xamante ne télévision moo koy lor xale loolu laalu ma ko sax dama ko tëb solution yaa ngi fi dañ ko tëb ndax di ñu wax ay waxtu te aussi ñu war a ñibbi Dakar. ñoo ngi ñaan yàlla yal na yàlla jéggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu